ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر المكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر المكد asalaamaaleykum mbokk yi te la alxames ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru diggu tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa dëppoo juróom-ñetti fan ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bokkul ci lim yu fàtte yi lim bu rafet la kon tey ci alxames ji rafet na ci lépp ñaanu bis bi maa ngi sàkk njéggalul yàlla mi aji màgg ji yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu dul moom te mooy aji dund ji tey aji des ji tey tuub jëm ci moom astaghfirullah aladim alladi laa ilaha illa huwa alxayul qayum wa atubu ilayhi xaadisu bis bi jëlee nañ ci anas ibnu malik moo wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ida araada bi abdihi xayran istaamilahu sunu boroom bu nammee ci ab ci jaamam aw yiw da ko koy jëfloo maanaam bu nammee ci ab jaamam mujj ku rafet da koy defal mu mën a jëf jëf ju baax qaalu kayfa yastaamiluhu ñu laaj ko ne ko nan lay jëfloo jaam bi naka lay jëfloo jaam bi qaal yuwaffiquhu li amalin saalihin qabla mawti yonent bi tontu leen na leen da koy defal xéewaluk wala tawféexuk mu mën a jëf-jëf ju baax njëkk muy faatu nga xam ne daal euh, saa yu demee ba toll ci ak mu jëm suñu boroom da koy xéewale mu jëf-jëf ju baax mu jël ko ca biir jëf ja walla mu jël ko ca ginnaaw jëf ja xadis bi Ahmad moo ko nettali. man